sont dans le groupe Univers Média bi nga mon ne moo la dépêche républicain la mu xëy nag ñun génn àdduna ki nga xam ne moo daal Mamadou Moustapha Ba Sonal bi xëy xamal ñu la République donc rend hommage donc à un grand fonctionnaire Sonal bi moo ci xëy ndek ñun def ci taxaw coalition Sopi Sénégal Tafsir Thioye daal également euh, mu ngi risqué li nga xam ne moom moo grande désillusion ci li nga xam mom moom lañ dal di jëm journal bi xeyna def ci taxaw seetlu wu yato yor-yor bi dafa desandi ak ñun ci ki nga xam mo dal di nek Ousmane Sonko après Tamba cap fi nga xam mo dal di nek les pôles nord et nord-est. 17 novembre il faut achever li nga xam mo dal di nek système wili li moo di ki nga xam mo dal di nek Ousmane Sonko un marché donc de gré à gré de 500 milliards de francs CFA donc du régime de Macky Sall sous le sceau donc euh, du secret de défense du secret défense beaucoup de révélations. révélation yi nga ni Ousmane Sonko mon ngi koy def ci campagne wili l'observateur xëy y ñun ci message intrigant yi nga xamné Mustafa Ba dal dina ko décédé lundi à l'âge de 59 ans euh, je suis au regret de vous dire je suis actuellement à Paris je rentre euh, fi nga xamné Dakar sous surveillance c'est euh, check up yi nga xamné jot nako ko def France euh, génn àddunaam déçu donc ci feebar bo xamné ne bu gàtt le dal bi xëyaat na def taxaw seetlu bu baax itinéraire donc d'un homme de l'ombre bi nga xamné ne génn na àdduna sans jamais trahi ben ci ay moindre secret d'une carrière discrète moom mo nek qualité yi nga xamné jotone jotoon nañ ko ko xamee journal bi xey ci ak ñun les échos lam xey xëy ñun da xey dama nekk ñun ci port autonome de Dakar Waly Diouf Bodian dal dina ubbi li nga xam mo dal di nek benen front bi la yon nak à l'origine benn note de service relative donc aux primes ou euh, gratifications donc annuelles euh, syndicalistes yi nag jamono ji ñi wax ak yéen ni mer ba futu lañ dal di def ki nga xamone que nekk say soyi bu géey nek syndicaliste ne daal euh, climat social bi dana daal nekk loo xamante ni lu métti lay nek fofu la ca port de Dakar ndax yi ñun ñu bugg a ay mbir la dañ ko ci euh, ñaar fukki à donc de l'ancien ministre des finances et du budget diggante 2022 jàpp 2024 Mamadou euh, Moustapha tu vas nous manquer journal bi ñun un technocrate compétent euh, un orfèvre donc des finances moom moo di ñàkk bi Moustapha Ba donc lorsqu'il quittait li nga xam sa ministère ne dal euh, li mu am yéene yëpp euh, servir rewam te def na ko le président Macky Sall dal dina suspendre donc sa campagne pour 24 euh, heures Amadou Ba moom ci walam suspendre na li nga xam mo nek campagne bim dal di nekkoon journal bi ci ak ñun le quotidien xëy ak ñun ci génnub aduna ki di Mouhamadou Moustapha Ba Mamadou Moustapha Badal n'a dina arrangé nag li nga xam ne moo di ay dossier le président de la République Bassirou Diomaye Faye a exprimé exprimer également sa compassion Macky Sall notre pays donc vient de perdre un un illustre fils jàmm ak njëriñ wallou, a wàllu daal suspendre li nga xam moo campagne Amadou Ba ne il était l'un des fonctionnaires les plus compétents que je connaissais euh, hommage nag ci euh, homme politique yi mu ngi daal di bàyyeekoo fu ne di ci mom Walf Quotidien entretien wu yaatu la amal ak mon nga xam mo nek Cheikh Tidiane Dieye mom sax ci ay cadeau mu melni kuy dal di tàkkali di Amadou Ba Bougane Gueye Dany moom ci sortie wi nga xam ne amal nako demb dal na déclarer déclaré ne dal Ousmane Sonko nga def déclaration de politique générale mu addu jëm ci criminalisation de l'homosexualité compte bancaire yi nga xam ne am nañu ko ci biti réew Bougane dal na défier ki di Ousmane Sonko sunal bi xey ci ak ñun

Réumi Quotidien, euh, décès donc de l'ex-ministre des Finances, Mustafa Ba. la consécration euh, au service donc ci li nga Mon ne moom la surtout kuréel bi nga xam ne Kemeres. daal di nekk MEDES ñoom rendre nañ hommage ki nga Moi ne moo di nekk Moustapha Ba euh, da Don jàll di jàppale ki nga xam ne moo le président Mbagnick Diop Souss ci liggéey yu bëree bëri ngir ñu mën di sargal yenn ci ay doomi sénégalais yi nga xam ñu ngi wone boppam seen bopp bu baax le soleil décès donc de l'ancien ministre des finances l'éclipse d'un grand monsieur des finances euh, ce natif de Nioro dal dina euh, wone boppam euh, génn àdduna démb ci feebar bu dal di donc foofu la ca Paris à l'âge de 59 ans le président de la République Bassirou Diomaye a Faye exprimé li nga sa tristesse euh, son prédécesseur Macky Sall salué également la mémoire donc euh, ci ki nga xam moo daal di nekk Mamadou Moustapha Ba journal bi moo ci ñun quotidien affaire de Bakel Bougan Gueye Dany porte plainte pour ñi nga xam ne ñoo nekk waa gendarmerie ba muy daal di continuer communiquer bi nga xam ne moom moo ko daal di euh, arrestation am day truffé également de contre-vérité liñ ci wax lu ci bëri dëppoowul ak donc je fais l'objet donc ci li nga xam que nekk poursuite orchestrée par Kédi Ousmane Sonko waa Pastef les Sénégalais ne peuvent plus continuer donc à vivre ci li nga xamone ki ben régime wo xamanteni ni dañuy dal di privé askan wi li nga xamne mo nek sen ak ak sen yellef li jëm ci élection législative 2024 duel Sonko Barth Dakar le combat du leadership Son alba ko xëyee ndeg ñun def ci taxaw seetlu ñu jaxlé ko walu tagat yaram ak journal bi di record la mu xëyee ñun vainqueur donc de la finale U17 face au Mali les lionceaux sur le toit de l'UFAO yooyu ne woon yenn ci ay ponk réew mi xëyee woon ko ñun ñu amoon mbégte fam fàcceel leen ko bu ngeen ñu toppee suñu yeneen jotaay xibaar yi war a bu 19h30 jotaay bu 20h la rédaction va y revenir avec vous dans beaucoup plus de détails xibaar yi mën nañ jàpp ne ñett ponk ci gën a bi ci jitu modi gennu génn àdduna ki nga xamni mo dal di nek Mohamed Mustafa Ba nekkoon euh, fi ministre des finances

daanaka mitin bu mu jaar rek dina génnee ay révélation yu am solo loolu génn na fas tey mi tey ci xibaar yi lool jàngat bi monsieur Diop am nga jàngat ci xibaar yi ñu xëyee tey. waaw euh, <coughs> xam nga xibaar yi moom dafa am solo. Mm-hmm. parce que xibaar mooy tax nit ñi di xam lu bari ci dëkk bi. Mm-hmm. parce que information dafa baax. Mm-hmm. donc nag di jaale Modou Moustapha. di natifu presque Saalum parce que boo nee euh, boo nee je pense ah. rek presque Saalum la. donc euh, di ko jaale mbokkam yëpp quoi. vraiment liggéeykat la woon bi mais liggéeykat la woon technocrate la quoi. Mm-hmm. donc nag euh, vraiment di ko jaale. parce que mm-hmm. cadre moom vraiment bu wàññeekoo ci ab réew rek. wàññi na lu bëri ci réew mi quoi. donc nag di ko jaale ñëpp mbokkam yi. avec euh, le gouvernement yi. Mhm. tu vois euh, vraiment am nañu naqar daal ak mhm. voilà. Mhm. concernant sortie Bougane bi démb noo ko jàng. man euh, je ne suis pas un politicien honnêtement. je suis un homme politique. suis un débat yooyu en général. honnêtement parce que bon, su débat. débattre damay débattre ci que je ne moy suqali réew mi quoi. man mm-hmm. ci débat yoy lay kii mais quant à di focaliser ci ay nit ak yooyu. Mm-hmm. non taxul ñu may invité ci télé wala radio parce que quand même je suis quelqu'un quand même. aussi mm-hmm. quand même je suis quelqu'un te xamna fi ma joggé xamna fi ma bokk. donc nak nit ki wax waxam mom mo xam li tax mu di ko wax. mais man sumay débat na débat ci lo xam au moins danañ jël danañ ci am njëriñ ci réew mi parce que réew mi dañ toll foo xam waratuñu xasante wala xuloo parce que ñëpp a bokk ndey ak baay parce que koo ci laal rek presque soo seetee ay maamam yéen a bokk quoi donc kon nag mm-hmm. man du je ne suis pas un politique mm-hmm. man luy développer réew ci loolu lay waxtaane mm-hmm. ak luy indi koom-koom ci réew bi moo tax man ñooñu duma leen déglu quoi très bien monsieur Ka am nga jàngat ci xibaar yi di xëyee jàngat bu ma ci njëkk a am mooy journaux yep euh, le Sénégal vient de perdre un de ses plus illustres fils Yakarna naa journaux yëpp tey ñëwaat nañ ci mhm. euh, day wane tiis euh, beneen peut-être fait d'actualité mais sur les questions de révélation Il nga xamné le PM Ousmane Sonko mu ngi mais aussi Bougane Gueye Il bi nga xamné euh, il avait, il y a quelques jours, des démêlés mhm. avec euh, euh, les forces de défense et de sécurité. Mhm. peut-être de porter plainte contre la gendarmerie. Mhm. mais je pense que peut-être il ne doit pas en arriver là. la gendarmerie, les forces de l'ordre de défense et de sécurité, nous sommes effectivement pour la sécurité nationale. Mhm. Euh, donc, en arriver jusqu'à vraiment porter euh, plainte, je pense que ça ne vaut pas la peine. Mhm. Euh, maintenant, Degna aussi, Mouiwak, sur la question de la criminalisation de l'homosexualité, vraiment, mhm. c'est un débat national aujourd'hui qui se pose, qui était beaucoup, en tout cas, suscité en 2019, euh, Macky Sall dafa bëgg criminaliser homosexualité. Mhm. mais gis nañ récemment aussi au Sénégal bi nga xamé né recevoir nañ euh, Jean-Luc Mélenchon. Mhm. bu ñu assemblée mhm. nationale effectivement dañ ko parce que il c'est aussi effectivement euh, question de xamné dafa intéresser sénégalais D'autant plus que euh, euh, le PM Ousmane Sonko mhm. euh, opposant Momo moo Mouné, mu assemblée nationale loi bougnou que mhm. c'est la loi contre la crime c'est la loi pour la criminalisation de l'homosexualité mhm. c'est pourquoi je me joigne à l'interpellation de Bougan Gaidani Dany effectivement est-ce que euh, Pastef bu euh, majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que oui ou non, de criminaliser effectivement euh, l'homosexualité euh, aussi mhm. est-ce que le PM qui parle beaucoup de révélations de sur des questions de leur de leur bien est-ce qu'aujourd'hui, lui il est prêt aussi à rendre public vraiment lu alal Mhm. aussi c'est une question bien à ramener. vraiment ça intéresse les Sénégalais. Mhm. merci beaucoup.